li nga xam ne ma xewoon na ci dossier bi naa si fàttali euh, lu tuuti rek euh, fii la ñu jógee àjjuma di dem participer manifestation ci Pacour département bu Vélingara région bu Kolda arrondissement bu Kounkané askanu Pakour ñoo ñu invité ci manifestation boobu ndaxte dañoo jël seen junni hectares suuf 1000 hectares jox ko benn doomu Sénégal benn doomu Sénégal euh, bu sant Sall euh, ñu xamee ko bu baax a baax Tambacounda fi nga xam ne am na fa ay toolu banaana mu bëgg a def ay toolu banaana fële ci Pakour ñu jox ko junni hectares waaye junni hectares yoo xam ne. askan bi nga xam ne moo juddoo yeewoo Pakour amu ko junni hectare yoo xam ne juróom benn dëkk ci junni hectares yi sax la ñu bokk maanaam yàlla na yéex euh, góor gi sàll bu génnoon àddina tey euh, ay ay doomam mun nañ ne ah ñun donn nañ ci suñu bàyyi junni hectare te seen juróom benn dëkk yi ci junni hectares yi la nekk ci kanamu yoon bu ñu moytuwulee ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci juróom-benn dëkk parcours yooyu du ñu am dëgg donc ñu dem pour participer ci euh, doxu ñaxtu ngir ñaawlu li nga xam ne moom la ñuy ñaawlu depuis ay at muy mafia foncière muy gangstérisme foncier muy banditisme foncier maanaam jël suufu Sénégalais yi di ko caxat-caxatee di ko jox borom doole yi nekk fii ci senegal di ko jox borom doole yi nekk bitim réew bi ñuy dem nag euh, ca Vélingara ca Pakour ñun gisoon nañ ne li wër suñu kër amoon na ay policiers en civil xamaloon nañ ñu itam ndaxte senegal ku am ay mbokk kenn mënu la jëw kenn mënula la fexeel itam te doo ko yëg suñu ay mbokk yi nekk ci biir état bi ñoo ñu xamal ne ah ñoom xamaguñu lu xew waaye weekend bii de euh, du du jeex te teguñu loxo ci ñun te état du Sénégal tegul loxo ci ñun ñun bi ñu yëgee loolu donte xamuñu woon lan moo tax ñu ñuy rëbb rëbb boo xam ne kenn rëbb ko Bougazelli mi nga xam ne dañ ko jàpp loxo ci poche ci wàllu trafic de faux rëbb boo xam ne kenn rëbb ko euh, Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur mi nga xam ne moo doon wax ne jënd na ay ñebbe bi mu nekkee jamono euh, directeur COUD kilo ñebbe quatre mille cinq cent kenn rëbb ko ñi nga xam ne ñooy toje alalu askanu Sénégal te lim bi gudd na duma ci lim mbay Prodac ñaa duma ci lim Siré mi nekkoon xawma ma duma ci lim ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ li nga xam ne moom la ñu def duñ ci lim ñi nga xam ne euh, euh, seen tur waxoon nañ ne dinañ yóbbu CREI yi te bu weesoo ki nga xam ne mooy euh, Karim Meïssa Wade ñeneen ñëpp dañ leen bàyyi. donc donte ñu ñu doon rëbb ñun waa FRAPP dañoo ne suñu activité suñu yëngu-yëngu duñ ci soppi dara donc dinañ dem Kolda continuer suñu ay yëngu-yëngu bi ñu demee nag egg nañ Kolda. dem nañ def manifestation boo xam ne dañ ko interdire dañ ko tere ñu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem ñu jàpp nag ne réewu Sénégal mafia foncière bi moo ëpp sañ-sañ ñi nga xam ne dañuy xeex cëxët cëxët bu ñuy cëxëtee suufu Sénégal trafiquant de faux billets trafiquant de drogue yi trafiquant de faux médicaments ñoo ëpp sañ-sañ ñi nga xam ne dañoo jox seen bopp askanu Sénégal ñi nga xam ne benn crime rek benn ñaawteef rek la def mooy aar li nga xam ne lu ñëpp bokk la te li ñëpp bokk bokk na si suufu Sénégal ñu tere manifestation bi mais terewul ñun ñu dem ci manifestation bi ñu demee ci manifestation bi gendarme yu bëri ñu mobiliser leen ñun waa FRAPP ñi nekkoon foofu ca Kolda ñu ne ak gendarme yi ñu mobilise ci Sénégal ak information yi ñu jot mënuñu ñibbi dakaar te dara duñu dal et comme yoonu Kolda ba dakaar bëri na si ay dëkk yoo xam ne amul réseau bëri na si ay dëkk yoo xam ne seen diggante mun nga dox fukki kilomètres wala juróomi kilomètres doo am réseau doo gis dëkk doo gis nit ñu ne balaa ñoo dellu ba dakaar dañuy dem gendarmerie bu Kounkané déposer fa lettre de protestation donc ci lañu dem ci gendarmerie bu Kounkané déposer fa lettre de protestation pour ñaawlu li nga xam ne interdiction bi nga xam ne état du Sénégal tere na ko manifestation pacifique pour ñaawlu itam euh, gendarme yi ñu yi ñu mobiliser bi ñu demee ci gendarmerie bi dañoo toog tuuti yeneen gendarme yu jóge feneen ñëw teg ñu loxo je crois que samay mbokk frappe yi nga xam ne jàpp ñu leen woon expliqué nañ loolu bu baax a baax. bi ñu tegee loxo dugal ñu ci auto gendarmerie juróom benn auto gendarmerie daanaka moo ñu jëlee Koungkané yóbbu ñu Vélingara juróom benn auto gendarmerie yoo xam ne auto bu nekk amoon na lu mu néew néew néew fukki gendarme gendarme bu nekk solu mel ni Robocop yore seeni fetal yore seeni ngànnaay yore seeni kask mel ni ku nekk guerre benn nit donc bi ñu demee gendarmerie Aliou Gérard Koïta la woon Boubacar euh, Diallo Ousmane Wade euh, mais personne morale du FRAPP suñu njiit ak man ñeenti membre FRAPP ñoo dugg biir gendarmerie ñu bàyyi ñett ñëpp jël ma dugal ma ci auto gendarmerie yóbbu ma garab ak comme ni ma ko waxee euh, juróom-benn auto gendarmerie bi ñu eggee garab ñu jébbal ñu police des frontières police des frontière jël moom itam otom dugal si ay policiers yóbbu ñu commissariat bu Tambacounda bi ñu eggee commissariat bu Tambacounda ñu toog fa xëy na fanweeri minute commissariat bu Tambacounda jël ay agent am dugal ma ci ci oto yóbbu ma commissariat bu Kaffrine bi ñu demee commissariat bu kafrin waa dikk bu dakaar ñu ñu fa doon xaar defuñu fa waxtu ñu jël ma dugal ma ci oto dikk ak ay agent dikk yóbbu ma indi ma Dakar Euh, donc mu mel nii diggante Kolda ak Vélingara lu mat bu ko ëppul téeméeri agent des force de défense et de sécurité dañ leen mobiliser ngir rek jële ma Kolda indi ma fii ci Dakar moonte de président Macky Sall xam na ne waa FRAPP xamuñu tiitange xamuñu ragal il aurait juste fallu que ñu wooñu wala ñu envoyé ñu message ne ñu vous êtes convoqué à la DIC pour que ñu ñëw et donc la question qu'on se mooy lan moo tax ñu mobiliser lu ëpp cent agents des forces de défense et de sécurité ngir rek jël Guy Marius Sagna ca Koungkané indi ko fii ci ndakaar waa Koungkané waa Vélingara fépp fu ñu romb ñoom ñëpp ñu ngi daan ne. moonte de ñun ñii dëkk fii te nekk ay sénégalais ñuy sàcc suñu jur ñu ñuy agressé yenn saa yi ñu ñuy rey kaaraange bi nga xam ne moom lañu ñu mobiliser pour rek benn nit Guy Marius Sagna kaaraange boobu ñun amuñu ko. ñu jàpp ne président Macky Sall force de défense et de sécurité yi agent yi nga xam ne ñoo nekk ci police gendarmerie ak armée ak ñoom seen fi ñu leen war a mobiliser mooy ci yitte askan wi. mooy ngir kaarange askan wi mooy ngir sàmm kaarange askan wi et non képp ki nga xam ne ànduloo ak li nga xam ne président Macky Sall moom lay def ci réew mi ñu mobiliser ko ñu euh, ñu jàppale ñu tëj la donc noonu laa ñëwee dikk li ci des dégg ngeen ko euh, diffusion de fausses nouvelles. Euh, tentative de discrédit d'une institution de la République foog naa ne dégg ngeen samay avocat li ñu wax ba su procès bi benn amul benn xibaar bi nga xam ne man joxe naa ko ñaar gendarmerie bi ñuy naan institution la gendarmerie boobu article six bu constitution bu bu senegal mooy lim li nga xam ne moom la ñuy woowee institution ci institution yi constitution di lim ci article six gendarmerie bokku ci article six dina lim président de la république ak gouvernement article six dina lim justice maanaam yoon dina lim assemblée nationale dina lim euh, les cours et tribunaux ak ñoom seen waaye amul fenn ci constitution fu ñuy naan di lim les institutions de la République ñu lim gendarmerie